kàddu gi nag maa ngi koy jël ci tuuru waa jàkka ji waa jumaa ji waa zawiya bi di feggoog sunu imam bi nga xam ni moo waroon jël kàddu wante mu terale ma kàddu gi man mu xeebu mi may wax seen tur ci tur yu magu jàkka ji ñoom euh, Serif Niang El Hadj Serif ñoom El Makan Gise ñi nga xam ni ak ñeneen ñi nekk ci jàkka ji sunu président El Hadj Kalidou Samba Sow mi ngi ni toog duma lim ndax suma ma limee damay juum wante bu ma waxee El Hadj Kalidou wax El Hadj Serif wax El Makan Gise rek yóbbaale naa yëpp donc su ma su ma waxee ñooñu rek yaakaar naa yóbbaale naa géew ñi nekkoon fii yëpp di suivre di topp tafsir bi boobu ba léegi tey nag dañoo am ay gan yu ñëw wàlli sinu bokk ak ñun xew-xew bi bokk ak ñun jataay bi muy jataay yiw kiñ ci tudd muy El Hadji Baara gay maire Yëmbal Sud ak délégation bu mu àndal ñoo ngi ñuy toog ñoo ngi leen di tatagal ñoo ngi leen di wax bismillah ñoo ngi leen di ñaanal yàlla di sàkku si yéen ngeen ñaanal waa soppee Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiallahu taala anhu ñoo ngi fi ñoom it muy sunu jigéen ñëlee feggoog ñun fële toog ci toogaay bu yiw boobu ànd ak jigéenu safinaay ak jigenu gox bi ma sha allah fa tabarakallahu ñoo ngi ne tok ñoom ak wa miftahul huda bi nga xamni dañuy top par martar euh, oustaz par martar fep ci bépp jotaay ak bépp waxtaan yu muy def ñoo ñep ñoo ngi fi kon nak ñoom ñep ñoo ngi leen di wax bismillah di leen dalal fi si jumaaji ji di leen dalal fi si zawiya bi di leen dalal fi si cité bi di ñaan yàlla rek comme niñ ko tàmbali woon ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulillahi rabbil alamin yàlla fajal na sunu ajo euh, léegi nag xam naa diñuy jug ci mbir yi ñaan yàlla yàlla na def li nu dégg fii ñu dégg ko fas ko sunu xol ba mu yegg sunu cër yi ñu jëfe ko bi jaahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه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 اللهم يا ربي علمنا ما جهلنا ونزينا ما ذكرنا ولا حول ولا قوة إلا بك يا عليم يا حكيم يا عليم جنابي سنتي يا برام مؤمن ما يوم تعملي تيرين بتدبو ما قبيدي القرآن الكريم mu may ñu tey ñu war ko tëj julli ci sangu-sang yi muy sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp kenn ku nekk ci turam ak santam ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baal xaq ñu ngi leen di baal ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla boo leen jéggal ci kàttanam ci mbaaxam su ko defee rek dañuy bëgg a dugg ci tafsir bi du yàgg bu ñu tafsiree ba pare rek kàddu yi ci tege soogaam ci tege incha allah tey nag ñaari saar rek la ñuy firi pour barkeeloo ko ci tëj gi ñuy tëj téere bi muy suratu duha ak suratu sharxi su la neexee nga ni suratul insharaxi ñaar yëpp baax na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 ñaari saar yooyu rek la ñuy firi tey incha allah xam naa jotaay bi du yàgg ndax am na ñoo xam ne fi ñu jógee dafa sore suuratu duxaa mi ngi wàccee màkka màkk yi tun la saar wi li muy jàngale ak di ko wax mooy sax si sayyidatu nabiyil azam sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam la yàlla di wax ci saar wi ak may yi nga xam ni yàlla may na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la saar wi bi nettali waaye ba tey saar wi dafa am li ñuy tuddee sababu nuzul sababu nuzul mooy lan moo tax saar wi wàcc alquran aaya boo ci jàng wala saar woo ci jàng dafa am lu tax yàlla wàccee ko ndax alquran yépp yàlla ni nga ko wàccee guddi laylatul qadri alquran yépp ci la ko yàlla wàccee lu tàmbalee bàqara ba naasi guddi laylatul qadri la ko yàlla wàccee jox ko seydina jibril alayhi salaatu wasalaam mu indi ko ba baytul izza mu teg ko fa baytul izza néeg la boo xam ni mi ngi ci asamaanu juróom-ñaareel tey su doon wàcc muy tëj kaaba gi baytul izza su doon wàcc mooy nekk kubéeru kaaba gi سواتون كون دايام تي كابا جي نيت مو كابا جي نو تولو بيت العزة بي جفي جبريل القران غودي ليله القدر جبريل اندي كو بيت العزة مو تيك كو القران دي واتي تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام سو امي لي يونتي بي سخلا مو خام اب ايه لا يالا دغ ايه بوبو جوخ جبريل من نيو سيدنا محمد su fekkee benn atte la bu ñu war a atte woo yàlla jox ko jibril mu ñëw jox yonent bi bu dee lu ñu war a régler diggante jullit ñi yàlla jox jibril mu ñëw jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag diiru ñaar fukki at ak ñett ci la ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñ la laajee alquran ñaata at la wàcc ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ñaar fukki at ak ñett 23 ans lay wàcc jógee baytul izza jibril di ko indi di ko jàngal yonent bi alayhi salaatu ba ci koor gi mu yonent bi mujj woor jibril ñëw koor bu jot ni ñu def nii di toog di tafsir alquran ak di jàng alquran koor bu jot noonu la jibril daan def par koor day ñëw ànd ak bi ñuy jàng alquran di ko jàng ba koor gi jeex Seydina Jibril dem ba koor gi nga xam ni nag moom la yonent bi mujj woor dem wuy ji yàlla boroomam koor googu Seydina Jibril ñëw ni ko demaa bëggoon tey téere yàlla bi ñu nafar ko ñaari yoon mu rajaxa ko ñaari yoon topp ko bàqara ba naas koor googu nag ci la Jibril placé la yonent bi alquran nii alquran placé woo nii ngeen ko gisee ci kaamil bi bàqara ba naas koor mujj googu bi mu ñëwee day wax jibril day wax yonent bi jàngal li nekk ci yow alquran yonent bi jàng bi mu jàngee mu ne ko jàng léegi suuratu bàqara mu ne ko waaw mu ne ko tekk ci teg ci ali imran mu ne ko jàng léegi ali imraan teg ci nisaa yi تتي مائدة ديكو توفتالي نونو جبريل موكو توفتالي نونو يونانتي بي ببقرة بناسي آية القرآن يتمد نين كوي جانجي نيمو توفتالي وو تي كامل بي بيمي واتي توفتالي وو الوال نونو ناخ خمدو بند بان سار لنجك بند موي بقرة ألف لام ميم نجكو الواتي بان سار موي نجكو واتي اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم boobu njëkk a wàcc waaye nii mu toftaloon nii nag jibril alayhi salaatu moo ko toftale noonu yonent bi aay yi mu ko doon jox tamit jibril moo ñëw ci koor googu ni ko aaya nàngam dugal ko palaas nàngam aaya nàngam dugal ko palaasu nàngam aaya nàngam dugal ko palaasu nàngam loolu jibril moo ko jëli ci ndigalu yàlla ñëw jox ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa wante bu caagee nii jibril moo gën a xam yonent bi alquran déedéet yonent bee ko gën a xam alquran waaye yàlla jibril la daan yónni mu indi alquran ji ci yonent bi li ma lay jox firnde ni yonent bi moo gën a dégg alquran jibril dafa daan indi benn aaya di ko firi di firi alquran ba egsi ci benn aaya ni tekk moom seydinaa jibril yonent bi siggi xool ko mu xool yonent bi ni ko ah, loolu xaw ma lu muy firi yonent bi ni ko demal bokk na ci keroog bi mu indee bopp suuratu Mariama dafa yegg si ni yonent bi kaaf haa yaa ayn saad ñu teg xool yonent bi yonent bi xool ko mu ne ko loolu de xamul lu muy firi sang bi yonent bi ni ko demal man sama boroom xamal na ma ko bu yàgg ndax yonent bi moog yàlla du fii mook yàlla du fii mook yàlla ca leer yàlla ba yàlla bindee boppam toog ba mu neex ko mu bëgg kuutaay ci kaw suuf dafa feeñal ci leeram leeru seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ma loolu la sunu góor ga di wax cheikh alxaaji malik wa innahu is arada allahu nashatana abaana min nuurihi nuura nabil alamin mu ne bi ñu yàlla bëggee bind dafa jël ci leeram rek feeñal ci leeram leeru yonent bi mu jël leer yonent bi nag ñu ci ñun ñëpp loolu lay wax fële ca feneen wa awjada baaqil xalqi taalima xibbihi alayhi taxiyatul ilahi tatibo kon yonent bi mooy lépp yàlla kon yàlla lépp li nga xam ne ab jaam war na koo xam ci yàlla yàlla xamal na ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam umu jëmil moom nag bi mu toogee ñetti fan gisul yonent bi génn waare gisul mu wax dara umu jëmil ni ah waxoon naa leen li muy wax ay njabar la dafa am ñu koy dicté suba ak ngoon ki ko doon dicté ñëwatu moo tax mu am gàcce dootul génn dootu leen ko gis yàlla wàcc sa yi ñii ni déedéet loolu du sababu nuzul bi li tax mu wàcc yéeféeri waa Màkka yi dañoo ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko laaj benn histoire bu nekk ci suuratul kahfi mooy histoire yi Xarnayni ni ko dañoo bëggoon nga waxtaanal ñu wax ñu yi Xarnayni ndax mbiram daf ñu yéem yàlla daf ko mayoon doole daf ko mayoon kàttan yaa juuju ak maa juuju boobu ngay dégg zul xarnay nii moo xeex ak ñoom ba gañe la yàlla daf ko mayoon doole léegi nag bu ñu ko laajee histoire zul xarnay nii ni ko bu fekkee yàlla la yónni war nga xam histoire bi nga nettali ñu ko yonent bi ni leen dem leen ba ngoon su ngoonee ngeen ñëw ma nettali leen histoire zul xarnay waaye nite gi jàpp ko mu fàtte wax insha allah fàtte na ko ndax nit la rek qul innama ana basharun mislakum li ma wuutee wuuteeg yeneen rek yuuxaa ilayya wax na ko saxaaba yi ba taay nee na leen man nit laa comme yéen li nu wuutee rek mooy jibril day ñëw di ma wax lu jóge ci yàlla te yéen kenn du leen ko defal waaye nit laa waaye nit la nag waaye yamul ak nit ñi de muhammadun basharun lakinnahu laysa kal bashar nit la waaye yamul ak nit ñi preuve bi ma la fiy jox ñun ñii ci biir daara ji ci biir zawiya bi yëpp ñu ci ñu ñëpp dañoo woor bu heure ndogu jotee ñu ñëpp dañuy dog suñu koor yonent bi daana toog ñetti fan ci weeru koor te du dog kooram ñetti fan daan wax saxaaba yi bu leen ma ci toppandoo nag ndax man am na ku may leelal te du leen leel bu ma ci kenn toppandoo daana toog ñetti fan yoo xam ni yonti yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam du dog kooram daana toog weer wala ñaari weer këram cin du fa tàkk te du génn wucc ko yamurru shahrun awi shahraani min zamanin wa lam tara al ayna fi l min hadami te du ko wuti sallallahu alayhi wa kon su ma nit la nit la waaye bokkul nit ñi Seydina Ali keroog bi ñuy def fat ko màkk yonent bi ñëw fekk xërëm yi ñu tegoon ci kaw kaaba gi mu ni këram yëpp tey da bëgg ñu daaneel ko benn bañ fi des Seydina Ali rakkam la taalibeem la seen ñaari baay bokk benn baay gorom la ndax moom la may Fatimatu bint Rasul Seydina Ali ñëw ni ko sang bi damay sukk nga teg sa benn tànku ndeyjoor fii ci sama mbag teg sa beneen tànku càmmoñ fii sama mbag ma jóg nga téye yar bi ngay dóori xërëm yi ñuy daanu nga dóor leen ci bi ni ko aliin mu ne ko labbay ko mu ne ko man àttanaloo te xam nga ne aliin kuy góor ci mag mu la ëppoon doole yéeféer bi ëppoon doole ci Makka muy Umar ibnu Wëdd Seydina Ali moo ko rey ci benn xare xare bu yéeme nga xam ne keroog bi Umar ibnu Wëdd taxawee gars yi bëgg a songoo Seydina Ali dafa jóg pour song ko yonent bi ci boppam moo téye mbubbu Seydina Ali bés ko toogal xanaa xamoo kii Seydina Ali toog Umar ibnu Wëdd taxaw ci kanam yonent bi bàkk bàkk bàkk Seydina Ali jógaat yonent bi téyewaat ko ni ko aliin toogal xanaa xamoo kii Seydina aliin toog ni mu toogee nii dend ak yonent bi mu ngi puus ndànk rek di xaw a sori yonent bi moom aliin pour bëgg na bu jógaatee yonent bi di ko mën a téye bi mu puusee tuuti yonent bi jekk ba yàgg rek Umar ibnu Wad di ñëwaat taxaw ci kanamu yonent bi bàkkuwaat mu daal ni bëri nga xam ne yonent bi du ko taxaw ne dind kaalaam gi mu defoon ci bopp bi moom Seydina Ali def ko nii mu féete gannaaw mu ne yonent bi takkal ma takkal ma yonent bi ni ko Ali mu ni ko takkal ma yonent bi takkal mu taxaw ni Umar ibn Wadi yegg si Umar ibn Wadi ni ko da nga ma xamoon soo ma xamoon doo xeex ak man laaj na say maam wala nga laaj na sa baay wala nga laaj muhammad ibnu abdullahi moom nga toogal ndax ñoom jàkk nanguwuñu woon muhammadu rasulullahi bàkk boppam man maay umar ibnu wëdd maa rey diw maa def nangam maa def nangam ba sottal seydina ali di ko déglu rek ba yàgg mu ne seydina ali wax naa la sama bopp danga may wax sa bopp ndax man du ma xeex ak ku ma xamul mu ne ko benn kii bu gàtt laa lay wax man maay aliin ibnu abi taalibin man la yàlla may bima sama yaay ëmbé ba imbi ma sama yaay musul su jootal xërëm man musuma su jootal xërëm loolu rek la lay wax ci sama bop ma gëm ki toog muy sayyidul wujuud wa alim shuhud sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kay kaw ko mar ibnu wud yobuma aljana legi wala ma yobula safara legi ndax sama ma lay rey ngay dem safara te so may rey may dem aljana ñom ñaar ñu songo biñu songo wi yonent baa ngi ñaan keroog ba kaala gi wadd Seydina Aboubacar yëkkati kaala gi yëkkaatal ko fii mu ñaanaat Babacar ni ko wàcceel sa loxo yi yàlla du la gàccaal ñoom ñaan ñi nekk ca xeex bay léewtoo ba yàgg pënd bi jóg yéeféer yaa ngi fële julli ñaa ngi fii mais kenn gisatul Omar ibnu Wadi kenn gisatul Seydina Ali ndax pënd bi yéeféer yaa ngi tudd yàlla jullit ñaa ngi tudd yàlla yéeféer yaa ngi yooxu ba yàgg rek ñu gis pënd bi di dal دال دال ببن بشير جوتول نسين سيدنا علي ابن ابي طالب ما لا توك تي عمر ابن ود جي جاسم سامب كو ني تي وتام لم بات عمر ابن ود با بات بي جاسي دي دي تودو يالا دي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله ديكو واخ ديكو واخ لو بني جولي بول جمعه di ko wax di ko wax di ko wax di ko wax ba wax ku lu ñaari waxtu soogaan bi jël jaasi ji rendi Umar ibn Wad keroog bi mu ko rendee saxaaba yi dañoo daw yenu Seydina Ali ibn Abi Talib ci kaw keroog yonent bi yaram bi dafa tàng ba ni ko ëllëg yomal xiyaam rey bii nga rey Umar ibn ci ngontu lii su la ko yàlla fayee waxuma la yow waaye sama xeet kenn du dem safar keroog loolu la ko yonent bi wax bi Seydina Ali ñëwee nag ñu laaj ko lu ko lu tax bi nga ko daanelee toog ci dënnam rendi woo ko nga toog fa di tudd yàlla mu ne bu may xeex ak moom dama ko mere sama meram bopp te bëgguma ko rendi ci kaw sama meram bopp dama ko bëgg rendi ngir jëmmi yàlla ci ndax yàlla fay loolu tax may tudd yàlla di tudd yàlla ba mer mi ma ko mere woon ma yëg ni jeex na ci sama xol ma soogam koy rendi loolu da fay dégg ni nit lépp looy def na ko def ngir jëmmi yàlla soo ko defee rek yàlla dafa lay fay ñoom nag bi ko laajee histoire Zul Xarnayni moom yonent bi yonent bi ne leen bu ngoonee ngeen ñëw ma tontu fàtte wax insha allah léegi nag ngoon jot yéeféer yi ñëw ne ko dañoo bëggoon liñ la laajoon ci Zul Xarnayni nga wax ñu ko yonent bi naa ah, Jibril nag ñëwagul dem leen ba suba ca suba sañu ñëwaat ne ko histoire Zul Xarnayni mu ni jibril li ñëwagul dem leen ba ngoon ca ngoon suñuy ñëwaat ni ko histoire zul xarnayni mu ni dem leen ba ëllëg jibril ñëwagul ba tey rek yéeféer yi nag ni ko ah affaire bi leer na nag ki nga doon wax ni moo la yónni sax ci boppam kookoo la bàyyil boppam waddoo rabbahu wa xàllaw yàlla la bàyyi léegi nag yonent bi nag tëju biir néegam nangootul génn parce que am nay kersay génn ci waa Màkka كين ديكو غيسات داخ بوروم كيرسال موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم شيخ الحاج مالك نانا جانكو خي بو نداو سي جامونو نيمي باري كيرسال نانا سيد الوجود موكو اوبون كيرس موم سيدنا محمد لكن مو توك نيغن نغوتو ген با ياغ صاح دي ген ديم سي مونتاج ني نيك ماك ييك سي كو مونتاج ني دي لاخاتو فوف ngir bañ yi fi gis ko ndax ko gisee daal ko saway jël xarnay bi loo ci wax لكن لكن لكن سمو لكن لكن لكن لكن رمي جزتي حسنا إلى الأرض لولا الروح لكن لكن لكن لكن لكن الحاج لكن أم 40 لكن جبريل لكن لكن لكن جبريل لكن لكن لكن لكن جبريل خلو لكن جبريل لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن jibril ne ko ah sang bi man dañ may yónni rek ki ma doon yónni moo ma yónniwul du man de ki ma doon yónni moo ma joxul dara moo ma yebalul looloo tax ma toog yonent bi daan ne ko moo lu sama borom wax ci histoire zul xarnay ni mu ne ko waxu ci sax waxu loolu sax tey mu ne ko lu mu wax mu ne ko dafa ni wala taxulanna li cheyin inni faailun zalika gadan illa an yasha allah nee na yàlla dafa ni la bul waxati dara dana ko def ëllëg wala dana ko def léegi lu dul da ngay wax ni insha allah moo tax jullit warul wax dara dana ko def lu dul dangaa war a wax insha allah insha allah du tekki li ngay wax day am mais day tekki ni yow gëm nga yàlla day tekki ni itam mbir mi nekkul ci sa loxo ci loxo yàlla la nekk mooy bu soobee yàlla looy defati na nga wax bu soobee yàlla waaye Sénégal nag toujours ma wax ko léegi gars yi moom bàyyi nañ bu soobee yàlla bu soobee sëriñ bi sax la ñuy wax loolu la ñuy wax de ñoo xam ne loolu la ñuy wax te boobu baaxul bu soobee yàlla la ñu war a wax mooy incha allah ndax yàlla rek moo mën moon def mooy mën a dindi. léegi nag bi jibril ñooy wax ko loolu gannaaw gi nag jibril ñëw nag di dalal xelam ci saar yu muy suuratu duhaa buur nee na wa duhaa maa ngi giñ ci yoor yoor man yàlla ci yoor yoor la giñ ñu ni déedéet du suñu yoor yoor bii de yoor yooru àdduna bii de yàlla mi ngi giñ ci yoor yoor yowmal qiyaam yoor yoor boobu lay lay giñ ndax yoor yoor na boo xam ni dana metti wax nañu yow bis pénc buy ñëw fajar la àdduna bi di tukki waxtu wi ñuy julli suba soo doon julli kat nag di julli suba waxtu woowu ñuy julli suba bu àdduna bi di tukki yow doo tiit tisbaar comme heure bii mooy taxawaay yowmal qiyaam jullikatu tisbaar yépp ak jumaa kenn du tiit tàkkusaan la lañuy dem peese ji jëf yi képp ku daan julli tàkkusaan ca waxtu doo tiit ndax waxtu tàkkusaan ci li ñuy peese jëf yi te boobu dafa la daan fekk ngay julli timis la dem nangu suñu téere jëf waxtu timis ci ngay dem kenn ku nekk ñu jox la sa téere jëf gée mu lëndëm këriis ci la yàlla di teg siraat fay làmp yépp kenn ku nekk sa leeru bopp mooy sa làmp mu ne jéggi leen nag ku daanu dem safara nag aljana la ñuy teer ji insha allah buur nag ni ko wadduhaa maa ngi giñ ci yoor yoor wëllee maa ngi guñ ci guddi isa sa jandeem lëndëm na këriis lan la yàlla di giñ mu ne yonent bi maa waddaaka bàyyiwu la rabbu ko sa borom yow duma la bàyyi xam nga wax ji ma wadi ak rabbuka su doon ci waxu nit la ak nit mi ngi mel tay nga xuloog sa xarit wala nga xuloog sa soxla nga am ay fan woowuloo loko ay fan nga woo ko mu ni ah yow da ma bàyyi nga ne ko man bayyi mala yow awma ma ku dul yow du ma la bàyyi dafa melni yàlla yonent bi daf ko wax ni ko awma ma ku dul yow ci amul ku dul moom ndax leeram la jël bind ci yonent bi di bindat lépp ci leer yonent bi la ko bind motax yàlla ne ko ma wadda aka bàyyiwu la rabbu sa borom yow duma la bàyyi wama khalla te merewu ma la du la bàyyi duma la mere waye xam nga duma la bëgg wax rek pour dalale ko sa xel li la yéeféer yi doon wax wala al akhiratu kër gu mujj gële di àllaaxira xayrun mooy dàq fuuf làkka ñeel la al ula ci aduna bi gis nga sa aduna li muy neex neex sa al akhira koy dàq yonent bi amul ku ko dàqoon àdduna lu tax yàlla def na ko yonent yàlla yónni na ko yàlla jël na ko tànn ko def ko muy soppeem kon seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku ko dàq àdduna dara ji ci gën a réy ci àdduna mooy nga nekk yonent te moom yàlla def na ko yonent moo tax mu ne ko waleel aaxirat sa kër gu mujj ga di àllaaxira maa ngi lay wax ni xayrun mooy dàq لك ñeel min al ula ci kër gu mujj gi di àdduna li ma la bëgg xamal nag mooy ëllëg yowmal xiyaam yow yonent bi wala sawfa yuxtika man yàlla danaa la jox danaa la may ëllëg yowmal xiyaam wala sawfa yuxtika dana la may rabb ko sa borom fa tarda ba sa xol seet yàlla ne yonent bi ëllëg soo dekkee jaam yi taxaw yow nga taxaw dama lay wax ni dugalal aljana dugalal aljana dugalal aljana ba sa xol seet gis nga keroog ba ko yàlla ne wala laaxiratu xayrun laka min al-uula ci la yonent bi commencé rek di jàbbatu allahuma laa aysha ilaa aychu laaxirati allahuma laa aysha ilaa aychu laaxirati yàlla daal xam naa ni dund gu neex amul lu dul àllaaxira foofu rek la dund gu neex amee parce que fii àdduna lu mu neex neex yenn saa yi nga feebar yenn saa yi nga ñàkk yenn saa yi nga deele yenn saa yi nga dee yenn saa yi xol bi neex yenn saa yi xol bi naqari waaye àllaaxira nag moom loolu yëpp amu fi day neex rek te dootul naqari dëgg la buur nañu wala alaaxiratu xayru laka min al ula yàlla ne ko wala sawfa yuxtika danaa la may ëllëg yowm al qiyaam rabbuka sa borom ngay dugal àjjana fa tarda ba sa xol bi set

yonent bi ne ko ajita zahiran am jita xaabita da nga ñëw pour ziar si ma wala danga ñëw pour jël sama ruux malakul mawti ne ko ñaar yëpp ma indi yàlla bi ma yónni dafa ni ma su ma ñëwee soo nangoon naa jël sa ruux soo nanguwul naa la ziar te dellu dëgg yaay tànn mu ni malakul mawti toogal bul dem malakul mawti toog mu ni jibril kaay demal nga laajal ma sama borom su fekkee rey na ma man sama xeet sama gannaaw lan la leen di defal ndax moo ma waxoon wa maa kaana allahu muazibuhum wa anta fihim moo ma ko waxoon te nag nee na damay dem comme damay dem dootuma nekk seen biir kon léegi su ma demee ban garanti la sama xeet di am jibril dem dellu siwaat ne ko yàlla nee na wa maa kaana allahu muazibuhum wa anta fihim wa maa kaana allahu muazibuhum wa hum yastaghfiruuna yàlla ne soo fi jógee fii ñu ngi sax ci baatu astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah di ko wax duma leen mbugal yonent bi daal di jooy daal ni allahuma ummati allahuma ummati allahuma ummati ay yàlla maa ngi lay ñaan sama kanam sama gannaaw sama xeet yàlla nga sotti si ñoom yërmande woo malakul mawti ni ko noppi naa malakul mawti jël ruuxam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam لولا تخ يالله نيكو ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى يونت بو غيس يالله دافلا جوخ بن نيان نيان نيان جو خامي سو نيكي سي نياخاري سو كو نياني مو نيك بال بو تاك لو بغي يالله دافلا يونت ييب يونت كو يالله ما سي جوخ ييب نيب تال سين با يونت يالله موسى بالام موم لي دور فرعون لا تشبخ وخرجوا bal ba la dóor xaaroonu suuf sa wan moom yontu yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam yontu yàlla Ibrahima bal ba la dóor yàlla alak Namruus yontu yàlla Huud bal ba la dóor Jibril ñëw xaatu gaay yontu yàlla Luut bal dóor Jibril ñëw xaatu gaay yontu yàlla Saalex ci giir Samuuda bal dóor Jibril ñëw xaatu leen ñu faatu Seydina Muhammad nag ni sama duma ko dóor ci aduna dama koy tey ba yowmal khiyam fala koy dóore yàlla ramul mako sama xeer wi wara dem safar do tax sunu gor di non sallim ala sayyidin xuzat shafaatuhu zawil kabairi kay yanjo min al nee neena deug deug deug kuy gor pir kuy gor wako sax kuy jullit dama ni kuy gor pir lii yonent bi defal fo tollu war ngay julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu defal nañ defal nañ beneen gis nga bi ji bi malakul mawti di jël ruuxam muy waaj a dem sukuraat bi dafa metti deewu yonent bi ni méttee benn dee mosu ko nettee benn dee mosul méttee comme sukuraatu yonent muy sukuraat Aïcha ne maa toog ci wetam jël sama musóor takk ci bopp bi nee na yonent bi dafa xees waaye bi muy xees bi muy sukuraat dem na bu mujj dafa weex dem bu mujj dafa xeereer dem bu mujj may gis kanam gi mel ni lu ñuul yenn saa yi ma jël ndox kaas def ci ndox mu sedd ma man Aïcha di dugal sama loxo ci biir kaas bi di ko raay ci kanam gi ndax ñax bi muy ñax yenn saa yi mu ni xëfeet bët yi ni ma yaa Aïcha inna lil mawti la sakaraat Aïcha ndekete dee metti na de boobu nag li tax mu metti le dafa ñaa dafa laaj malakul mawti ni ko waa sukuraat kenn ku nekk sama xeet buy sukuraat metit bi mu ne ko métit bii nga nekk nii kenn ku nekk balaa muy dee dana ci daj téeméer léegi yonent bi nii malakul mawti waxal sama borom sama xeet yépp seen juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent kenn ku nekk sa quatre-vingt-dix-neuf na ma ko yàlla teg ma sukkuraataaleel ko ko yóbbaaleel ko loolu kenn mënalu la ko ah loolu ma ni kenn mënalu la ko yonent bi rek moo ko mës a def amul keneen ku koy def loolu nag boo ko bëggee delloo njukkal ci ci loolu xam nga noo koy delloo njukkal mooy boo jël bari rek looy julli ci yonent bi yonent bi loolu moo koy kontaanloo ku bari lu muy julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax buur ñu ko wala soo fa yoxti ka man de danaa dana la may rabb ko sa boroom ngay dugal àjjana fa tarda ba sa xol sant léegi nag yàlla bëgg dalal xelam pour mu gëm gëm na li mu ko wax waaye xol bi dal yonent yàlla Ibrahima jaar na fa yàlla dafa ñëw ci buntu tefes gi fekk benn xar mu dee mu gis jën yi dañuy dagg dugg ci biir ndox mi lekk xorondoom yi dagg dem ci jéeri ji lekk picc yi naaw aju ci kaw mu koy xool ba yàgg mu ni waaw xar mi ni mu mel nii jën yi dugal ci géej gi xorondoom yóbbu ci jéeri ji picc yi yóbbu ci kaw yàlla nee na ëllëg dana ko dekkalaat ba xar mi taxawaat man de gëm naa yàlla waaye yàlla ci foo ma wax a yow mu ni rabbi araani kayfa maw mawta yàlla dëgg-dëgg am na lu ma bëgg mooy nga wan ma nooy dekkale ku dee yàlla ne ko awalam xanaa dañ nga ma gëmul xaala balaa mu ne ko ah kay gëm naa la walakin li yatma ina xal bii pour sama xel dal pour sama xel dal ah? sama xel mu ngi ko walakin li yatma ina xal bi yonent bi nag yàlla di dalal xelam Ibrahima yàlla wan ko loolu ne ko jëlee ñeenti picc rek nga rey leen yu bokkul mu jël ñeenti picc rey leen mu ne ko jaxaseel seen yàpp yi fenn jaxase seen dunq yi fenn mu jaxase lépp ba pare mu ne ko wutal ñeenti bool nga séddalee mu wut ñeenti bool séddalee mu ne ko tegal bee fee teg bee fee teg bee fee teg bee fee téyel bopp yi mu téye bopp yi mu ne ko picc boo bëgg mu ñëw rek woo waaye na ko wóolu ci ndigalu yàlla mu téye bopp ganaar taxaw fii daal ni ganaar dekkil ci ndigalu yàlla lu bokkoon ca ganaar ya dajaloo ñëw fekk si fii ganaar gi taxaw sax mu ni naat lu bokkoon ca naat wa dajaloo ñëw petax ganaara lu ca bokkoon ñëw mu ne ko nii laay dekkale ku dee yonent bi nag yàlla ni ko danaa la jox ay preuve yu yu lay wan ni li ma la wax danaa la ko defal mu ne ko preuve bu njëkk bi alal yëjit ka ndax fekkuma la woon yow yonent bi ñett yi man ngay jirim fa aawaa ma tàpp la sama bopp yow balaa nga judd sa baay dee na ndax yonent bi ñaari weer rek am ci biiru yaayam baayam faatu gis nga keroog bi baay bi faatoo pour wax la yonent bi malaaka yi sax ñu ko gën a bëgg nit ñi malaaka yi dañoo dajaloo dem ci yàlla ni ko yàlla yaa waxoon jigéen jéy ci màkka di amina lee mu ëmb su ko imbee mooy nekk sangu nit ak jinne yàlla ñu leen dañu ma ci te xam nga dëkk bi ku fi nekk jirim kenn du la jàppe dara waxaal al amlaaku rabbal xalqi sayidana ayabra nabiyuka maadudun min alitami ay yàlla da ngay bàyyi muhammad mu juddu ñu boole ko ci njirim yi yàlla ne même buñ ko boolee ci njirim yi man maa koy wat wa waxaala laa inna nii laa shakka xaafisuhu wa rabbuhu awnuhu kaafihi fi iman yàlla ne ko loolu maa la ko defal bi nga juddoo itam sa yaay juróom-benni at la def ak yow sa yaay faatu nga dem ci sa maam Abdul Muttalib sa maam Abdul Muttalib def ak yow juróom-ñetti at sa maam Abdul Muttalib faatu nga commencé woote fi affaire bi méttee lool Aba Taalib mi la doon dimbale ak Khadija Aba Taalib faatu ñetti fan Khadija faatu waaye ñun ñëpp taxul si ndimbal sama loxo ci yow jóge ci yow moo tax mu ne alal yi jiit ki xanaa fekkuma ne woon yétti mën nga nekk jirim fa aawaa ma tàpp la wa wajjate kama fekk la daalan ngay ku ñu réere yonent bi mësul réer moo tax daalan bu ko firee ngay ku réer yonent bi mësul réer wa wajjate kama fekk la daalan ngay ku ñu réere fa hadaa ma gindi ñi la réere woon ñoom Aboubacar Ousmane Ali ba ñëpp gëm la su la nekk nga ni wa wajjate kama fekk la daalan ngay koo xam ne amoo sharia amoo diine fa hadaa ma jox la shariatul muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam كلها يعني نجي نتبي صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا فأغنى ووجدك مسكنا عائلا غي أجي نك نك لم يكن يلا دق يلا عائل دي في الفقير فقير تي عرب دق دق موبي دو في الكو نك فقير موي كو آجو دارا كو آجو يلا كو غلي فقير لولا تخل جنبال شيخ تجاري شريف رضي الله تعالى عنه ينتمي نقول أصحابي أصحابك فقرائي فقراؤك بابو باتو فقي فوليمي في موي تالي بي كوبو جدارتي يالا من يقول وجهنا كما فكنا ينتبه عائلا يتوو غمر يلا فاغنى ما دفلا عارف بالله دفلا يونين فخ بنان اللي تيجي جلير لكنك واخنا كنا تيم كنا فا لكن أنا أنا أنا أنا أنا أقول أقول لك لك لجنا خلو أنا كيانين تبينك من أنا تبينك ما مليدين أنا يتيما فلا تقار أنا جريم نور مدي أنا فوق جسدي جريم أنا خير فأمل يتيما أنا فلا تقار بقى أنا ما ده بيسو أنا ولا بيسو تبسك أنا نجس بين خالد أنا منو خلو جوي أنا كسمة خال دادن أنا باي منو كتلان أنا كسمة باي دا أنا أجي أوتش خربا أنا خارجي فلا ده tey nag bisu korite gaa ngi nii wala tabaski xale yëpp ngi sol seen yére man nag aw ma bàyyi bu ma jëndal yére yonent bi te xelam dem ca yàlla li mu ko waxoon ni fa amal yatiima fala taqhar yonent bi ni tekk di ko xool ba yàgg mu ne ko est ce que doo bëgg ma nekk sa maam bu góor Aïcha nekk sa maam bu jigéen Ali nekk sa baay Fatima nekk sa ndey Xasan ak Xuseynu nekk say frère mu ne ko nangu naa loolu ci beneen riwaaya mu ne ko est ce que du bëgg ma nekk sa sa baay fa Aïcha nekk sa yaay Fatima nekk sa mag xale bi di ko bëgg naa loolu yonent bi ànd ak moom këram sàngulu ko jox ko ay yére xale bi génnaat leer nañ yeneen xale yi ko doon wax ni ko yow sa baay dee na doo sol te yére ñu gis ko mu sol yére yi rafet kanam gi rafet ñu ni ko yow léegi yaa ngi doon jooy tey yaa ngi mel melu nii mu ni fii ma toll nii nag yonent bi mooy sama baay xale yëpp ni wooy ak a neexoon sunu baay ya dee ca xare ba ndax Seydina Muhammad nekk sunu baay ba tax mu ne ko fa amal yatiima fala taqaar jirim bul ko gëdd wa ama saaila fala tanhar ki ñëw di la laaj tamit bu ko gëdd bul xeeb jirim bul xeeb ki lay laaj maanaam ki lay laaj bu ko gëdd mbas yàlla kale xanaa laaj bu ko def yàlla nee na même taalibe bi sarafu taxaw ci sa buntu kër wala ki ñëw di sàkku ci yow ndimbal so amul loko jox wax ko wax bu rafet yàlla neena nga wax ko wax bu rafet moma ma gënal nga jox ko ba bare tek ca ba xawlun ma'rufun wa maghfiratun xayrun min sadaqatin yadba'uha azza li ngay laaj da nga fi fekkul wala fekk nga ko fi waye dama ci am aajo may ma ba benen mo gën nga yëkati 50000 jox ko mu génn nga ne ci dafa nakale rek yàlla ne yak nga sa xaliss ba pare am nga bàkkaar moo tax mu ne ko wa ama saa'ila ki lay laaj fala tanhar bu ko gëdd mu ne ko nag wa ama bi ni'mati rabbika fa xadis xéewal gi ma la defal waaye di ko waxtaane waay ndax nekkoon nga jirim nekk ku ñu xamul nekk koo xam ne da nga soxla woo yàlla ma tàpp la jubal la fexe ba ñëpp xamul kon soo gisee ci jirim na nga ko ñeewant su la nit dee laaj na nga koy yërëm ndax lan mos nga njirim mos nga ñàkk loolu mooy sóoratu duxaa alam nasara moo ci topp ñu firi ko bu daanoo rek sëriñ bi ñëw incha allah ñu àggale liggéey bi buur ne alam nasara ndax du ñun yàlla alam nasara ñu ubbi sadraka sa dënn yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dafa xotti dënnam daf ko defal opération ay opération yi opération la ko defal xam nga lu tax xol dafa am ci biir xol palaas boo xam ni fa soxor di nekk fa la siis di nekk fale nay di nekk fale la iñaan di nekk place yooyu loolu di nekk nag te yàlla bëggul yonent bi yooyu benn dugg ci xol yonent bi moo tax bi mu amee ñaari at bi mu juddoo ba am ñaari at yàlla yëbal jibril jibril ñëw ànd ak ñetti malaaka bobu mo ngi ci alimatu saadiya di nam génn ci gannaaw dëkk ba jibril jàpp ko xale yi daw jibril nak so déggee ñu naan jibril jibril jibril buy ñëw day nekk nit dégg jibril day nekk nit yonent bi xol la cent fois la yonent bi gis sayidina jibril mais ñaari yoon kesse le ko mës gis mu nekk jëmmi malaay القران a ولقد راى النزله الاخرى ra'aahu nazlatan المنتهى bu leen ni Jibril dañ koy gis ni mu nekk nit déedéet dañ koy gis ni mu nekk malaaka déedéet dañ koy gis mu nekk nit comme yow. bi mu nekkee ci àll ma nag Jibril ñëw moo xale yi génn ci gannaaw dëkk bi ñoom ñu jàpp ñeenti malaaka yooyu bi ñu ko jàppee tëral ko xale yi daw Jibril moo xar dënn bi génnee xol bi lumb boobu nga xam ni siis soxor iñaan foofu lay placé Jibril xotti ko sotti yooyu def ci leer ba mu fees dell mu ñaw ko delloowaat ko ci biir xol yonent moom la Bushayri yi di wax mu ne oh doktooru sama waa doktoor dootul mel ni moom ñu ne ko kan mooy doktooru sama waa ji mu ni doktooru doktoor yi doktoor dootul mel noonu ñu ne ko kan mooy doktooru doktoor yi mu ni Jibril mooy moo ñëw opéré docteur docteur yi ndax yonent bi mooy docteur docteur yi sallallahu alayhi wa sallam kaste ko lu tax mu ni docteur docteur yi eh, yonent bi bi ma amee juróom ñetti at dafa am wàllent wàllent bu métti fekk booba baay bi dee na yaay ji dee na mu des ak Abdul Muttalib Abdul Muttalib dem Màkka fu ñu fay faje bu doon jamono tey nga ni hôpital yëpp dem na fa tuufaay bu ne jox nañ ko yonent bi bët yi di gën a metti mu songu faju wala fi bët yi di gën a metti mu songu maam ma nii bët yi di gën a metti mu jaaxal am ku ne ko am na benn labbe bu tudd Baxiira mu ngi booru Cham demal ci moom parce que kooku boo demee dina ko mën a faj Abdul Mutalib ànd ak Seydina Muhammad ba ci docteur labbe boobu nuyonteeg moom ñu ko sama doom ji laa bëggoon nga dimbali ma ci sama sët la bàyyam dee na yaayam dee na man rek la des te bëtam yi dana yàqu ca xale la labbe bi téye loxo yonent bi dugal ko ci biir salle bi muy defee consultation comme ñu ñoom docteur Ngaye da ñee di def daal koy tëral ci kaw lal bi bi mu ko tëralee ci kaw lal bi maama Abdul Mutalib ba ngi toog ndax gone la ci jamono yooyu labbe bi jël loxoom teg ci dënn yonent bi mu dégg dënn bi di bax Cheikh Al Hadj Malick ne yonent bi mu soo soo bokkoon ak moom sàppe julli wala mu jiite lay julli même buy tari da dégg dënn bi day mel ne kàddu guy wajax dënn yonent bi day bax nee na mu jël nopp teg ci dënn yonent bi mu dégg dënn bi di bax mu wëlbati yonent bi dëpp ko خول في كوتي تامون يانت دي في تامبون خاتم النبوة دا فا تولي كوم نينو كاتاخ اي كارو موكو وور ام بن خليل مام يالا في سوف لا بي بي فون خاتم النبوة الصلاة سيري مصلى منو كو واتشال مو واتش مني مام عبد المطلب كاي مو نيو مني بو كي كين منو كو فاج كي موي دكتور دكتوري كي موي فاج بوبام ما عم نكو بوما جاخر sama doom bii bët yi na la yàq nga naan mooy docteur yi docteur yi mu ne ko xoolal kii mooy faj boppam léegi wax ko na tàllal baaraamam bii yeneen ci bi tàllal baaraamam bii mu ne ko na tàllal làmmiñam te tooyal ci taf bi mu tàllal làmmiñ bi tooyal ci taf bi raay teg ko nii baaraam bi ci kaw làmmiñ mu na naka rëdd ci bëtu ndeyjoor bi mu rëdd ci bëtu ndeyjoor bi bët bi weex tàll mu ne ko nag na ko tefaat ci bëtu càmmoñ mu rëddaat ci bëtu càmmoñ ñaari bët yi weex tàll nee na ci nekk mu ko dawal gaaw kii mooy ci bi mujj jencal sa doom kii mooy docteuru docteur yi te bu ko yóbboo ci fenn lu ko dal na jël loxoom bu tedd bi teg ca loola raay mu wàcc sallallahu alayhi wa sallam bi nag jibril opéré ko benn yoon opéré na ko deuxième fois boobu ci bi juróomi at la am bi mu amee juróomi at jibril ñëwaat la defal ko opération

yi nga doon xalaat wisre bàkkaar lay firi mais yonent bi mosul am bàkkaar bul wax wa wadaa naa ñu sippi an ka ci yow wisre ka say bàkkaar déedéet da nga naan wa wadaa naa ñu sippi an ka ci yow wisre ka yi nga doon xalaat yaakaar ni yàlla toppe na la ko bàkkaar mooy lan ak lan xasootu badar bi muy dem dafa am ay ñu ko topp ñoo xam ni naafiq lañu te xamu leen biñ demee ba ci yoon wi ñu ne ko ñun suñu kër yi dafa ràpp dañoo bëggoon nga may ñu dellu mun leen dellu leen comme ñeneen ñi inna buyutanaa la awratu dem leen ngeen dellu mu bàyyi leen ñu dellu bi ñu delloo rek yàlla yebal jibril mu ñëw ni ko sa borom nee na wa maa hiya bi awratin seen kër ya ràpp ñu in yuriduuna illa firaara dañoo bëgg a daw ay tàppet lañ dañoo bëgg a daw waaye seen kër yi dara nekk loolu nag des ci xolam mu ne ah man mi leen yeewi kon yàlla mën na ko ci toppee dara muy benn ñaareel bi itam bi mu jógee ci xare ba amoon na ay asaara ay yéefee yu ñu jàpp mu laaj leen galak xaalis bi mu leen laajee galak ba pare yàlla ñëw ni ko ah jarul woon ngeen nga leen di laaj galak loolu tamit nekk ci xol bi ñetteel bi Abdullah ibn Umm Maktum silma xala woon dafa ñëw fekk yeneen bi toog ak kàngami màkka yi yéefee yi di di naxanteeg ñoom di defanteen ñoom jalo pour ñu dugg ci diine ji ñu ni ko ñun bëgg nañ dugg sax ci diine ji mais sa diine joo xam ni ñëppay bokk toog ñu am alal ñu amul alal noble yi notable yi ñu bokk ci famille yu yi ñun ñëppay bokk toog benn jataay ñun diine jooju mënuñ ci bokk fi yonent bi di waxee loolu rek ñoo ko lafañ yi dañuy ñëw toog ngeen baal ma ci wax bi silmaxa yi dañuy ñëw toog loolu ñun mënuñu ko te ñun ay kilifa lañ fi ñuy waxee loolu yonent bi rek benn silmaxa egsi ci buntu yonent bi taxaw naan asalaamu aleykum yonent bi ñu xaw ni teg dégg nga xaw ni teg mu waxaat asalaamaaleykum yonent bi ni teg mu waxaat ni asalaamaaleykum yonent bi ni teg silmaxa bi wàññeeku dem ndax ci sharia soo nuyoo ñaari yoon kenn fay la ñetti yoon da ngay doon buntu kenn du ko fëgg boo ñëwee ci buntu da ngay taxaw ni asalaamaaleykum ci sharia suñ la nee waaleykum salaam sax ci booy jàng sharia ngeen baal ma fiq dañ lay wax ni bul dugg su bismillah moo lay dugal suñ la nee bismillah tamit bul dugg ngeen baal ci wax bi na nga toog taxaw diiru ku summi woon tubayam sol ko ku tasoon sëram wodduwaat nga soog am dugg lislaam dafa sérieux am naa ñu mag dem loolu nag yonent bi jàppe ko nitu yàlla yi ni déedéet du noonu de du tafsir bii de nitu yàlla yi moo tax ñu digg alxuraan nitu yàlla yi déedéet bi mu nuyoo yonent bi bañ ko fay mu nuyoowaat yonent bi bañ ko fay mu nuyoowaat yonent bi bañ ko fay booba Abdoulaye ibn Maktoum fi mu teg yonent bi déglul baax fi mu teg yonent bi dafa rëy te yonent bi bëgg mu am fatku am maarifatu billaay xam yàlla mu xam ni kii su ko wàccewul fi mu ko teg du xam yàlla mu nuyoo ñetti yoon faale wu ko yonent bi mel na ko ko danga xam lu mu wax li wolof di wax koo yaakaar yàlla la yaakaar rek fatku bi te loolu la ci jublu loolu nag mu yaakaar ni loolu yàlla daf ko koy topp yàlla ko wadaax naa ñu sippi ankati yow gis rek yi nga xam ni moo la diisaloon alladi ya nga xam ni an xadda diisaloon na zayraka sa gannaaw yooyu yonente léegi xoolal li ma la defalaat wa rafa'naa laka zikrak lu ko man maa yëkkati sa tuur wa rafa'naa ñu yëkkati laka ñeel la zikrak sa tuur sa tuur amul kenn kuy nodd lu dul day duggal si tur amul kenn kuy liqaam lu dul dafay duggal si tur amul kenn kuy julli di taay lu dul day wax sa tur amul kenn kuy xutba xutba juma lu dul day duggal sa tur léegi imaam bi muy xutba su fekkoon julliwul ci yonent bi xutba bi du wér faaw da ngay duggal da ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xutba bi منك أمر كل كوا خميك دنا دفلون تفك دغول السطور ما ورفع على لك ذكر ما يكتب السطور ما تيال نك وضم الإله حسن إبن صادق ما كوا خلون وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا خالف الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد كم نسكت ها؟ ما هو ما كم نسكت buur ne mu ne wa damman ilaahu lahu isman ilaa ismihi yàlla moo jël turam xar ko dugal ci turu yonent bi mu ne noddukat bi suy nodd ci juróom waxtu yëpp dana ko ci def ku suqa lahu min ismihi lii ci lahu nee na ma xalaat sama tur dugal ci turu yonent bi man yàlla pour ñu màggal mu ne fadul arshi borom aras ji yàlla mahmudun ku ñuy sant la wa hada yonent bi muhammadu mooy muhammad صلى الله عليه وسلم مدخلي ورفعنا يكتي لكن ينذكر كستور لكن من قدر فإنما العسر يسرا أفر بسمته خمني ليه من نيخ فإنما العسر يسرا سايمته ليه من نيخ إنما العسر يسرا سمته واتي ليه من نيخ لكن يلا لي وخي ينتبي عليه الصلاة والسلام من ينتبي فإذا فرغت ها فانفرغ su fekkee jaamu nga yàlla def li nga war a def yëpp yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ida faraxta soo nekkee ci jaamu yi nga war a jaamu yàlla fan sax na nga sonn pour lan sa wàllu àdduna yàlla yàlla wàccee barke alquran ci suñu kaw bismillahi rahmaani rahim sadaqallahu alazim wa balax rasuluhu nabi mustafa karim ونحن على ما قال ربنا وعلى من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم وجعلنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما سردت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوتي عن السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من زهر أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو مخزن أو تعليل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سيف اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إدغام بغير بيان أو مد أو أو إظهار بغير بيان منا على التمام والكمال والمعذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبنا خبر المنايا منا من الخبث والكذلات وأمنا من عذاب الخبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبيض وجوعنا يوم البعث واعطي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وزق ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان وأكرمنا بلقائك يا ديان واكرمنا بلقائك يا قيام يا ديان نصيب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وردنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا وجلاء أحزاننا وذياب همومنا وخائلنا وصايخنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل وانسنا في النشر ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة وضللنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعزمنا به من الليث والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحمن اللهم اختم بسعادة آجالنا وحق بزيادة آمالنا واخرج بالعافية قدونا وآزالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وذكر بك صغرنا واعتقادنا وامن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين امين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سائر الشريعه والبرهان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بلغنا ما قرعناه ونور ما تلناه بروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام اللهم بلغنا ما خلعناه والعلماء تلوناه نعم للروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم لثواب ما فعلنا والعلماء تلوناه نعم للروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى روح أبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا بأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين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 متضاحم اللذات والمجان شيخ تيجان يهم بلد تبي وراء بتعين من كل نار نار والآن كبد شيخ تيجان وتشحشان أبوابها وشعابها وتعم في الأحسان والبلدان شيخ تفسير بي بما كوخي اك ak legi yakarna bu matul ñenti at man na at mu jot ñu ñëw def fi tafsir bi bokkante ko ngeen koy bokkanteel yépp kon Thierno ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga fi yàgg te wér gannaaw bi ma ko nuyoo ziar ko itam maa ngi nuyu ñi nga xam ni ñoom la teg ci néegu yàlla bii ñu doon defee tafsir bi muy imaam Ibrahima Lam male toog ak imaam Samba Ndiaye su ma leen tuddee rek tudd naa xadara bi ak jullit ñi nga xam ni ñooy jullee fii yépp waaye ak sunu magu daara muy bàyyi tafsir mbay bële toog nga xam ni tubaarakallaahu mooy moom magu daara ji ci biir ak ci biti nuyu président Khalidou Sow nga xam ni lépp luy daayira safina moom moo koy coordonné jiite ko nuyu tamit Cheikh Ahmed Tijani Ndoye ma nga nële ak waykatu xadara bi yépp di nuyu El Makaan Gise mi ngi nii toog sëriñ bi bi tafsir bi tàmbaleeg léegi bis bu nekk day ñëw ànd ak ñun ci tafsir bi kilifa la ak Seydina Aliyun sogg sogg mële sugg waaw e, makaan gise elxaaji makaan gise moom mi nga xam ne bi tafsir bi tàmbalee gi léegi day ànd ak ñun ci tafsir bi te commission bi nga xam ni ñoo yore liggéeyu jàkka ji moom mooy président bi moo ko jiite comme moom ci xadaraam la ñuy defee tafsiir bi kon moom tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm Alioune Su Alioune Su gu male fii la dëkkoon kër Chérif Niang waaye mu taxu dëkk kastoor waaye bis bu nekk sëriñ bi day jël taxi ñëw bokk ak ñun tafsir bi ak góor gi mbaay male toog tubaarakallaahu moom tamit ñu ngi leen di sant ak sëñ aadama Sarr male ci ginnaaw saa su nekk ak ñeneen mënuma tudd ñëpp e, ñooy bokk ak ñun tafsir bi ak géey mii toog nga xam ni su ma amee ngànt mënuma ñëw makaan mee laay woo wala ma woo Thierno Ndiaye ni ko waxal waa jàkka ji tey bu ñu sëlmalee tisbaar mën nañu yeweeku ndax tey am naa kon ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di nuyu suñu maire di sa xarit di sa soppe di Baara gay mii toog di ku baax ñëw nañ ba ci yow wax la li mu defal sa maam Seydil Hadj Malick ñëw nañ ba ci yow wax la ko la dagg bu rëy jox ñu ko ni tabax leen fi zawiye Seydil Hadj Malick ba pare yëkkati un million teg ci ba pare mu yëkkati un million teg ci war ne tegaat na ci ñaar fukki junni daal ni maag ngi yéen ci liggéey bi loolu moom dama ko lay taaye mais maa yéen ci liggéey bi muy sunu maire di maire u Yeumbeul Sud ñu ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal ci barke yonent bi barke xadara bu tedd bu sell bi te xadara bii nag moom xadara la boo xam ni ku fi ñëw sàkku fi dara dañuy am yaakaar ni la ngay sàkku yàlla dana la ko defal incha allah ci kàttanu yàlla bokk na ci barab yi nga xam ni ñun li ñuy doye di doye di pa man am naa yaqin ni ku sa aajo narul faju fii moom doo fi dugg fii doo fi ñëw ku sa aajo narul faju itam kii doo toog ak moom muy Cerno Xaamidu kon nag baaraangoog sëriñ bi di sa doom di sa njaboot sopp la lool nag sa njaboot yee nekk caaro yi muy safinatu saada bu ñoom semu jóob fañ daan defee conférence bi gis nga ko ci biir mbedd ma moom moo leen leen ku toll ni Thierno Hamidou Yorobaan du ñëw ñu koy dugal ci biir mbedd indi leen ko ci place publique bii ma tabax mu ni fànn te lu ngeen laaj danaa leen ko defal ngir dëkkandoo gi nu dëkk ngeen am droit ci maire bi waaye ngir kilifa gi fiy ñëw muy Thierno Hamidou moom mi moo ko def te day jël loxoom dugal ca bu baax a baax kon bu ñëwee fekkee si suñu tafsir war naa la ko présenter ndax amul jot war naa itam wax la li muy def ci sa njaboot ya loolu rek moo tax ma jaar ak yow foofu ci moom bàyyi njawar a nga nele toog tubaarakallaahu bu may aadama jaañ bu sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu mu ngi noonu toog di sa doom di sa soppe di sa wëllëre di sa lépp Abdul Aziz a ngi nii toog oustaz Mor Diop a ngi nii toog tubaar Mor moom léegi duma la ko présenté ndax gannaaw dogalu yàlla yow yaa ko may soxna ndax faatu bi mu koy bëgg mbokk yi dañ ne ko ah ñun benn kilifa lañ am muy Thierno Hamidou bi mu ñëwee ci Thierno Thierno xool ko muy taalibe Thierno ni kii bu ñëwee ma may ko soxna Thierno ko may soxna kon moo tax moom léegi ci xadara bi la bokk moom tamit mi ngi nii toog tubaarakallaahu waa soppey Seydi Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiallahu taala anhu ñu ngi ne la toog bi nga ñëwee sama conférence ñoom nga gisoon ñu sol yu vert yi am na tey ñu sol yu vert yi ci ñoom waaye am na ñu sol leneen lu vertul ñoo nga nële toog tubaarakallaaw bokk ak ñun jataay bi sëriñ bi ñuy ay jigéen ñoo xam ni diine rek moo leen ñor ñoom laa gis mbooloo jigéen boo xam ni diine rek moo leen ñor lu dul diine ñoru leen e seen mbooloo kenn du fa dugal photo kenn du diine rek diine rek lu dul diine doo ko fa dugal te ñu ay jigéen bëgg diine lislaam bëgg tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane respecte respecté ñëpp ormal nitu yàlla yëpp ci loolu la ñuy dox ñoo ngi nii toog ñoon tam ma présenté la leen waa Rimbax di dëkk bi ma dëkk Rimbax mooy suñu dëkk sëriñ bi loolu wax naa la ko waxaat la ko ñaan nga ci ñaanaat ci Rimbax mooy suñu dëkk sam bàjjan a nga ne toog bàjjan Mati Silla di sa soppe di sa xarit moom toog na du toogee ñaari weer wala weer ñëw ziar si la tey dafa ànd ak sama bàjjen Kumba Silla ak sama bàjjen Anta Kumba Silla ñu ngi ne li toog ñëw fekke jataay bi suñu rakk suñu soppe àndoon ak yow màkka di El Hadji Jibi Silla ma nga ne toog ci ginnaaw bokk bokk ak jataay bi di sa doom tubaarakallaaw saa yu ma ko woowee dana ma la laaj téléphone dana laaj Bachiru kon moom tamit mu ngi ne la toog ñu ngi koy présenté bu baax di nuyu nag waa Miftaahul Huda Miftaahul Huda mooy émission bi may def ci rajo bi àjjuma bu jot 10 heures ba miti émission boobu sëriñ bi dafa amaat beneen mbooloo bu judduwaat ci biir Miftaahul Huda yàgg na booba maa ngi rajo Suppi FM falaa nekkoon ñu taxawal ko muy mbooloo mu takku ki leen jiitee ngi nii toog di Modou Sall kii moo leen jiite ak Alioune Badara ma toog ñoo leen jiite ak Xaaji Demba Ndiaye ak Daawuda Njaay bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin gis nga kii Serigne bi mbuur la gonte mbuur la jóge mbuur la jóge ñëw ba fii tey pour fekk jataay bi moom Daawuda di suñu xarit di suñu wëllëre a ah, su ko defee man Serigne bi loolu rek laa doon wax di sant nag di la gërëm ci taxawaay yépp di la ñaanal yàlla rek nga yàgg fi te ànd ak wér ñu nit ñu yàgg fi te ànd ak wér ak ñu fi teew ñépp tubaarakallaahu ñu ngi ñaanal ku teew ak ku teewul yépp di ñaan yàlla tafsir bi yàlla bu mu nekk suñu mujj tafsir yàlla bu mu nekk suñu mujj tafsir yàlla nañ koy tafsir ñu koy fekke Ceerno di ko fekke ba ay sëtam ay sëtaatam di ko fekke ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu tamit Ceerno Mamadou bii toog tubaarakallaahu waxoon naa ko sànq di taawu sëriñ bi wax naa sànq balaa ngay ñëw ma ni sëriñ bi dafa bëgg njaboot te bëgg alquran te fonk nit waaye bu nu boole woon a Thierno Mamadou mii rek doy na sëkk waaye moom dafa fonk nit dafa fonk nit dafa bëgg nit su ko defee loolu rek laa doon tëjee jataay bi ci kàddu ko defee ñu bàyyi monsieur le maire mi ngi toog baara ñu jox ko kàddu gi ñu sànnanteeg sëriñ bi ay kàddu ak mbooloo mi ndax moom nag nitu daara la sëriñ bi moom doomu daara la ndax yàlla dafa dogal ñu bokk pas-pas ñun ñëpp yàlla dimbali nu aussi depuis huit ans ñu nekk à la tête de la mairie ah mu metti mu yomb ñu ngi jéem sunu kemtalaay kàttan waaye xam nañu ni seeni ñaan topp nañu ndax eh, maa ngi wax ci contrôle yi ñuy dëkk yëmbal te ànd ak man ñëw yëmbal sud dafa bokk ci communes yi gën a néew doole ci wàllu budget waaye yàlla dimbali nañu ba li ñu jot def ci wàllu résultat ñeewee wuñ ko kenn ci Dakar ci maire yi nekk ci Dakar te bokk nañ ci ñetti communes yi gën a néew doole ci fukki communes yeeg juróom-benn yi nekk ci dakaar loolu nag jàpp naa ne dafa am lu ko laytaay ndax euh, dugg gi ngeen di dugg yëmbal ñaan gi ngeen ñuy bàyyeel loolu defe naa ne lu am solo la oustaz wax na ko sànq bés bi nga xamante ni moom la ñu lay jagleel at mu saa su ñëwee bu ma dalalee ñi nga xamante ni ñoo la war a dalal foofu dañ ma daan wax ni dañ koy bëgg def ci ruq beeg ma ne leen kilifa gu doy ni Thierno amudu weesu na nag war nañ ko nag bàyyil poussière bu ñu koy dugal ci biir mbedd mi nag yàlla dimbali woon nañu defaroon nañ place publique bu ñu aménagé ci kaw tali bi ma ni franchement nañu koy def foofu ah ba jot a xew aussi xew ci diggante digganteeg sunu sunu frère euh, Oustaz Mor nga nekk sunu papa nekk sunu goro alors donc loolu yëpp muy loo xamante ni lu rafet la sama diggante ak kii nag dama la koy gaaral te di la wax ni mi ngi may jàppale ci zaahir di ma jàppale ci baatin mi may jàppale ci biir di ma jàppale ci biti euh, day dem di def ay mbiri boppam di ma ci boole bu demee ba ci cheikh toog def ay mbiri boppam woo ma boole ma ci te loolu jàpp naa ni ku la yéene rek moo la koy defal bërëb boobu nga xamante ni souvent bu ma demee Fès bi ma fa mujjee dem rencontré waale le maire dama ni ko yéen mën ngeen ñu dimbalee leen jox leen ñu cheikh ñu yóbbu ko Sénégal parce que ñun rek gëm cheikh euh, parce que dama jàpp ni la fa nekk sénégalais yee ko def mu ne ma non bu ñu leen joxee cheikh ngeen yóbbu économie Fès dafay daanu parce que ñoom xam nañu ne économie Fès sénégalais yi ak africains yi gëm Cheikh ñoo ko téye donc foofu xam nañ ni bërëbu ñaanukaay la bërëbu wetukaay la te moom mii am na lu ko yàlla may lu bëree bëri bokkuñu commune de waaye sunu waa commune ni ñu ko respecté jéggi na dayoo ndax taxawaayam pas-pasam sañ-sañam ak kàddoom ak xam-xamam bu mucc ay macha allah day ñëw taxaw biir yëmbal wax leen loo xamante ni ci man a ah, maara day taal lu am solo la donc vraiment moom sama diggante ak moom noonu la demee moom moo ma soppal boppam yiir ma di ma tette di ma jaarale ci yoon te liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéeyal uh, sunu maam Seydil Haaji Malick radiallahu taala anhu ñii ñoo ma ko gaaral ñoo ñëw ñu ne ma yow yaay ndey ji réewu dëkk bi mm-hmm. dañ fi bëgg këru Seydil Haaji Malick man leen yéex ngeen ko laaj yéex ngeen ko laaj yàlla dafa dogal sunu maam ak sunuy baay ak sunuy ñëpp lu ñu am naasiril xaq bi xaq lañ sàq mi ba ni ñuy génne àdduna moom la ñu bëgg a sàq ba kere ñuy génne àdduna ma ni leen nag boo dee maire da ngay tëddee ndey ji seex am na loo xam ni boo ko defee rek dana fees mais du moment wu ñaan ngeen ko mënatuñ ko bañ dañ koy def looloo tax ñu ne leen nag zëw yi bi nañ ko taxawal mënuma woon ñëw ni leen kaay leen ngeen def ko bu boobaa nit ñi danañu xam fa ma jëm mais di moment wu ñaan ngeen ko amul problème ca lañ ko def te ñoom it ñu ngi ci di kalaw kalawi yi yàlla na ko yàlla mottali jàpp naa ne ci sa barke incha allah yàlla dana ko mottali préparé wu ñu woon wax dara dañoo bett rek jox ñu kàddu gi mais ñu ngi lay ziyaare di renouveler suñu cofeel ci yow euh, di la ñaanal nga yàgg fi yàlla na la yàlla bàyyi ci kanamu njaboot gi yàlla na la yàlla bàyyi ci suñu kanam bu mu yàgg yàgg nga yàgg ñoo conseillé yàgg ñoo tette yàgg ñoo jiite eh, ci barakatu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala seydina muhammad a yàlla waxuma la diina ji waaye tarixa bi ñun ferte lañ ci moom ci di li mu nekk suñu mag ndax suñu mag la ci deret suñu mag la ci xaqiqa di nuyu tamit sama xarit bi ñu bokk daara léegi laa koy wax rek ko bi may ñëw maa ngi romb soxna si yaayam ba mu koy nuyu mais xàmmewul moom di nuyu tamit monsieur le maire comme ni mu ko waxee dañuy am ferte ci moom ndax bokkuñu moom waaye yëg nañ lu baax li muy def ndax dégg naa rajo di dégg benn jigéen bu nekkoon Arabie Saoudite ku nekk xam nañ la la xewoon ci loolu mu jël engagement ci njabootam loolu ko baax doomu moo koy def kon loolu muy def yal na ko yàlla fay rawatina li mu nekk taalibe ci kër yal yàlla yokk yàlla yàggal na ñi fi yalla buñu yobale ben metit ci seen yaram metit buñu amone biñu ñew yalla metit bi dañ rap rap pos yalla dañ tay ci barke serina mohammed yalla nañ bokk ci ñi yàllante bi nga xamni ni akun mina na ci fukki fan yu mujj yalla ñu ko yalla defal ci barke serina mohammed ñi ngi jégalu ci kali yi nañ ci wax liñ ñu wax waye wax waaye wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbolo mi ciaru neena gannaaw sante yalla tabaraka wa taala julli ci sang sangi sallallahu alayhi wa sallam ñaagaade welu allah yo wona ceerno meeɗen cheikh ahmad tidiane sharif radiallahu taala anhu di ñaan ngërëm yàlla yal na ko yàlla dotti ci suñu sëriñ mawlaaya a sayidi cheikh ahmad tidiane sharif radiallahu taala anhu kanko e denndangal khalifa ɓe makko e moqaddame ɓe makko e almuɓe makko moom ak mboolem ak xulafa am ak ay muqaddamam ak ay taalibeem ceerno ngi ñaan yal nañu yàlla boole ñu bokku ci taalibe sayyidina cheikh radiyallahu taala anhu nee ngeeremu yàlla gogu yal nako yàlla lawal yaatal ko ba mu yegg ci suñu mawla ya cheikh alxaaji umar al futi radiyallahu taala anhu nena na ngërëm tamit yal ko yàlla lawal di ko yaatal muy wàcc muy wàcc ba mu yegg ci sen khalifa di sayyid al haji malik si radiallahu taala anhu mom ak mbollem khalifa yi nga xamne ak ay muqaddam yo xamne ci bépp tariqa buñu munta nek yalna na yàlla googu fekk len fofu ceerno neena bu loolu noppee mbokk julit yi fi teew yépp ceerno mu ngi ñuy wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mu ngi ñaan mawlaana tabaraka wa taala mboolem li yàlla ëmb ci biir nuyo googu yàlla nañ ko yàlla boole defal mooy jàmmi yàlla yërmande yàlla barke yàlla yàlla bu yàlla dañ di dotti suñuy kaw ba ilaa mi diini nee bu loolu wee mu ngi nuyu mboolem ñi fi Pape Makhtar nuyu ñépp góor ak jigéen ku mu xam ak ki mu xamul yépp ceeru mu ngi leen di nuyu waaye bu sitee ñaar tànn ñaar ci biir mbooloo mi ñaar ñooñu danañu yóbbaale mboolem ku fi teew alhamdulillahi nee na ñoom ñaar ñi mu bëgg a tudd ñoom ñaar dafa mel ni dañu wuyu si hadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala sax nga ne hadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa feeñ ci ñoom ñaar

nee na bu ñu melee neneen tamit xeet bi yépp day daal di yàqu ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñooy ñan mu ne kilifa diine yi ak kilifa aada yi nee na alhamdulilahi rabbil alamina ñi fi nekk ñépp ay kilifa lañu nee na alhamdulilahi rabil alamina bu ñu tuddee monsieur le maire alxaji Baara Gaye nee na ci biir kàddu yi mu yëkkati ñu duggalaale ci mboolem ñi nga xam ne ay kilifa lañu ci wàllu aada nee na bal sax ba ci wàllu diine gi moom buñ ko fa tuddee am na fa cër gu mat sëpp nee na waaye tey alhamdulilahi rabbil aalamiina ceerno nee na ñu ngi koy dalalee ci anamu wàllu aada ji tey ngir nga mun ñaa yóbbaaleel mboole mi kilifa yi nga xam ne daña gàlloo ci wàllu aada gi bu dee nag ci wàllu kilifa wàllu diine nee na buñ ci tuddee suñu suñu xarit suñu soppe di ceerno Ibrahima Ba almuqaddamul baraka moom dana wuutu mboolem kilifa diine yi fi nekk ñépp nee na yéen ñaar nuyu na leen ci biir nuyu gi leen nuyu nuyuwaale na mboolem ñi nekk ci seeni gannaaw ñu xajaale ci biir nuyu googu ñu ngi leen di dalal ci mbooloo mi nga xam ne moom ngeen fi fekk ñu leen di dalal yi tamit ci làmmiñu xaaj Pape Makhtar Sylla mi nga xam ne ci la leen dalalee ñu ngi leen di dalal yit ci tafsirul quran bi xaaj Pape Makhtar Sylla di def fii ci daara ji ci zaawiya maam Cheikh maam Cheikh Alhaaji Umar al Fuuti radiyallahu taala anhu jaar na yoon سلنا ترافتنا تيتنيخنا الحمد لله رب العالمين تفسير بي موي داف موم حاج باب مختار تي ندغل لاكوي ديفه بيان الحمد لله رب العالمين كو حال كده كو نوم نينا دغنا موي موم لاي ديف تا تيرنو نينا نوني موكاي واخه مبير مي نون لا ديمي nee na suñu kilifa di suñu wasiila di suñu wayjur di mawlaaya asayidi cheikh alxaaji mouhamadun al bachir moom moo woo ceerno mu ne ren def leen tafsir yal na yàlla guddal fana moom ceerno mouhamadul bachir yàlla dogal it at boobu xaaj Pape Makhtar ak lenn ci njaboot gi ñëw ci kanamu Thierno ñu ne Thierno ñun de ren dañu bëgg def tafsir Thierno ne aha dégg na تنانغونا موديل تيتير محمد البشير كادو تيتير محمد البشير نتيير حامد نخكي ورا ديف تفسير القران بي طالب دغلا دفا فك نتيير محمد البشير بغنا طالب غو خامني اب طالبم دفا فيس لول buñu waxé nak ak talibé day fekk modi talibé go xamné xamna mbind gi tax ñuy wax talibé day talibé go xamné tamit li mbind mi bind dana feñ ci mom manam mu ngi jëfe li nga xamné mom la bind bi mbind nee na nag alkamaalu lillaahi nit munta mot cent pour cent wiiko fattakullaha mastataato o wiyaani fattakullaha tan haa gasi o wi ko kulee allah nee na loola waral yàlla tabaraka wa taala ne jullit ñi fattaqullaha mastadaatum waxul nit ñi fattaqullaha fal force rek déedéet dafa xam ne ñàkk mot gi ñu ñàkk mot moo tax nee na nañu xar suñuy tànk tubéy ñu ragal yàlla suñu kéemtallaahi kartan moom Ceerno Hamid mu ne Ceerno Mouhamadul Bachir kii fas yéene def tafsir bi de mu ngi tudd Haaj Pape Makhtar Sylla li ñu boole mooy yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana sayidi cheikh radiallahu taala anhu cheikh alhaaja umar al fuutiyu ak mawlaaya sayidi alhaaji malik si radiallahu taala anhu yàlla nag mu ngi dogal xamante googu ci téere maam jooju di xilaasu zahab ndax suñu njaboot gi nekk fële ci caaro yi dañuy def ab conférence mom cher mu ne joxe na ndigal def len conférence bobu cher no ne len bëgg na nak nit bo woté ci dara li nga xamne motax nga woté na feñ ci bir oté googu bo woté nit ñi ci yàlla bu nit ñi faké wut la wax len lan la yàlla boo wootee it ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi ñëw wax leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen nag nee ngeen seen tàkkusaan bi tàkkusaanu sayyiduna muhammad la ceerno leen am ngeen ki leen war a waxtaanal walla amoo leen ñu ne ceerno aha am nañu ki ñu war a قال نيم صحيب واي خلاص الذهب بسم الله سوا واي خلاص الذهب يا ود باود خلاص الذهب ولا هون ايوا تفسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول خلاص الذهب شيرنا نلن بولن دمي نجين وقت كوار وقتانجي بودي من خلاص الذهب نوقتان خلاص الذهب بمنول نك خلاص الذهب نجين دم سيد كي كي من خلاص الذهب مو وقت انا اللي انت خلاص الذهب كم كتاك كسان سيدنا محمد لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس تيوي ادي دي هاد كو لا بيكو a yawti hilasu dahabi sa yeehi sa rentaki garta ko hilasu dahabi walla kaalowo hilasu dahabi jewtowo hilasu dahabi o ɓurba haalde e rasulullah sallam ko ɗum lam nee na nit boo demee ba jàkk jàkk bëgg xam ci yonent ngay dem ci xilaasu zahab boo fa bàyyee xilaasu zahab nag dana da ngay seeti la nekk ci kawam nee na yagg da ngay delluwaat ci xilaasu zahab wa illa ki nga xam ne jàngale xilaasu zahab diko ko moo lay wax lu leer ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ci biir xilaasu zaxam la koy waxtaanee noon ko allah ɗum ceerno meɗen xalifa meɗen mawlana cheikh alhaji malik si radiallahu anhu jazahullahu an islami xeyr nee na lii nag ab jagle la goo xam ne yàllaa ko sédd suñu maam jooju di sayidil xaaji malik si radiallahu taala anhu yal na ko yàlla fay fayub lislaam nee na bi njaboot gi demee yeggee message boobu ceer na yebal leen nañ ko wax xaaj Pape Makhtar ne dafa mel ni lii mu bëgg wax moo di ni ko xaal pulaar di waxee rek yii di toon nelaa toon yaawata ko yettoyaade toon nee na yow nga bëgg ab béréb ñu yónni la ci bërëb ba nee na daal da ngay balaa balaa kala doon yoon yónni di noppi sax day fekk yegg nga ah ceer ah macha allah nee na wolof bi leerul bi ñu waxee xaj Pape Makhtar بنجابور كي وخي لول حاج باب مختار نكتو يو فلين سير نيبال باب مختار فلاي دخان توموم موي صلى الله عليه وسلم تبير خلاص الزحب جنك تيرنا لن بسم الله بجوثي دانا نيو بما إن شاء الله دانا تيول دنا دقلو بما دقلو بجاري ما وقت ni nabiyallahi ibrahima waxee woon doomam ja ismaila so tawi wonno wayi bu dee it am na ni mu mel hannde mi haala mi wiyemo tan mi haalano won tan no nelaɗo enne ibrahima haalino ennebi ismaila ma waxaat leen rek comme ni nabiyallahi ibrahima waxee woon ismaila ibrahima kadi mo arino juura ƴewtade ismaila e ɓesgu mum nee na yonti allah ibrahima ñëwoon na di ziyaar sa njabootam di yonti allah ismaila waɗo tawi ismaila yehi mu ñëw ca kër gi fekk nabiyallahi ismaila dafa génn dafa génn tuuti ñi ne dafa demoon rëbbi ji nee na yàlla dogal soxnaam si mu waccoon foofu yont yàlla ibrahima fecc fekk ko foofu gis na ibrahima muy mag ah colin gi fa tabaraka allahu jekkul moom ndaw si ni mu bëggee woon kuy ñëw ci moom mel noonu xamul tamit Ibrahim mu daal di sàggane yonte yàlla Ibrahima yonte yàlla Ibrahima daal di dellu dem bi muy dem nag mu bàyyeeg soxna si benn kàddu mu ne ko bu yàlla dogalee sa borom kër ñibbisi nga ne ko buntu këram gi fi mu jub baaxul de na ko jubbanti tuuti loolu rek boo ñëwee rek nga ko rek am na góor gu fi jaar neel daal borom buntu kër gi daal na ko jubbanti tuuti يالا دغال نبي الله اسماعيل ني بسوات بي اسماعيل نيوي يونتي الله اسماعيل من ن سخنا سي امول كفي نيو سما غناو من امنا بن غور غو ماغت بو في جار غور غو خامني واخ رك لاي ديف اي لاج دول ديخ رك لودول امول لوم لاجول سي بير كيرغي واي دال لجل نما تاي من اها Muna, a ah, bi mu yewé ko dénku la dara muna a ah nee na de boo ñëwee nee na sa buntu kër gi nang ko jubandi fi mu jakarlo do fi ne ah yo de da nga xamul lu xew ki fi jaaro ndek sama wayjur la moy yonti yalla Ibrahim alayhi salam mu nak buma ñibisé yow na la yewi do sama soxna mune a ah kon nak jéggal na la ah soxna si daa ji rëccu waaye nag mënu ci dara yàlla dogal beneen jamono moom yonent yàlla ibrahima mu ñëwaat tamit di nuyu si njabootam si mu fekk fi beneen soxna di soxna yonent yàlla ismaila kooku daal di koy gàttandu teral ko teral ko yóbbul ko ndox mu sangu mboolem teraanga goo xam ne gan yittewoo na ko soxna si defal na ko teraanga googu mu nekk fa ba heure demam jot mu ne ko nag bu yàlla dogalee sa borom kër ñibbisi nga ne ko buntu këram gii na ko gën a dëgëral nee na buntu kër gu baax la yont yàlla ibrahima yeeweeku daal di dem yont yàlla ismaila ñibbisi mu daal di laaj yow soxna si amul ku ñëw sama gannaaw fii mu ne ah bi nga demee de góor yàlla bu baax jaar na fi borom leer ku neex a wax ku mun a dénkaane mboolem loo xam ne daal nit war na ko yittiwoo ci mu jëm lu baax dénk na dénkaane na ko fii Ismaayla ne soxna si ah bi muy dem waxu la dara mu ne naa la wax ni boo ñëwee sa buntu kër gii na nga ko gën a dëgëral nee na buntu kër bu baax la mu ne ah góor googu jaaroon fi sànq de sama wayjur la mooy yontu yàlla Ibrahima mu ne naa la téye yow jigéenu kër nga ku am wërsëg nga ku am sens nga moom Ceerno nag muy yeggale xissa bi mu doon wax sànq mu ne bu demee Caaroy mu déglu Haj Pape Maxtaar ah bu xilaas bi jaaree yoon mu ne ay wa téye leen ba mu dëgër de bu melee neneen nag ne du wax dara waaye boo leen ma seet see danaa leen wax ne dem leen woti ji keneen yàlla dogal nag ceer ceerno daal di ñëw ceerno gis fa lu weesu njortam mu dégg fay tamit lu weesu njortam gis na fa xam-xam gis na fa yar gis na fa toroxlu mboolem qualité bo nit war a woon ci kanam kilifam nee na xaaj Pape Makhtar wane na ko bis boobu mu ne leen ay wa téye leen góor gi nee na sant nag ñeel na yàlla boobu nag ba tey nee na yàlla dogal na moo ko yore muy dem nag di dem yàlla dogal tey ñu nekk benn mbir waaye yàlla dogal na bi ñu xamante ba tey bi ñu fi def conférence nee na monsieur le maire mii même su ñëwul nitam moom day ñëw wuy si délégation bu rëy ñu wax fa wax ju jaar yoon ñu daal di yeewee ko nee na at mu ne danañu def loolu nem ba ci yoon gu mujj gi nee nañu ah monsieur le dafa génnoon dafa doxoon benn voyage waaye ren moom ci jëmmi boppam moo bëggoon fekkee conférence bi waaye nag teraangam terangam ak ndimbalam sant ñeel na yalla nim ko daan defé ak gune ren tamit mo daq ceerno ne ah yalla nako yalla jappandal ki def ngiri jëmmi yalla nga defal yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena koku yalla mo koy fay yalla na la yalla fay kon nak ceerno nee na buñ la dalalé fi ci sa ëtt ci sa bërepp lañ la dalal تير سنت نيلنا يا الله نينا خاله ون لبطنير مسلمير كسي نينا دن لجابتي بينن أنا موي بيني كن جبوت مولا يشيخ الحاج عبد العزيز الأمين تمت أجنك تمت ستو مولاي سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه dégg nañu ni mawlaaye cheikh alhaaji abdul aziz si al amin ku la soppoon la lool ah njaboot gi moo ko yeggee loolu de man nag nee na ceer moom nag bu njëkk am na nu mu la doon gisee moom da la doon xoolee bëtu monsieur le maire rek waaye nag biñ ko yeggee la nekk ci biir boobu nag tamit la bee salaat pas-pas bi ak jàpp gi tamit mu jàpp la bu baax a baax ne comme que monsieur le maire yére rek la nee na leneen nag li nekk ci biir du jeex fii ci àdduna du jeex àllaaxira yàlla dogal ba ngay ñëw fii nee na bi nga defal bi nga defal tariqa sayyidna cheikh radiallahu taala anhu teraanga bi nga defal lislaam gi teranga bi nga defal mawlaaya sayyid alhaaji malik si radiallahu taala anhu yàlla gis na teraanga yàlla yàlla fay nee na lu ci am lim loolu du du du njàqare du dara nee na bu ko teeloon a yëg nee na seen monsieur le maire fii di Madior Diop nee na kooku moo waroon ñëw mu mu dalal la foofu ndax kooku it doomam la ne du ci wàllu politique du wàllu parti socialiste du wàllu meer gi yàlla dogal na xamante nañu lu jiitu loolu ñu koy xalaat boobu fii abba yàlla woon bu ñu fiy def ab jàng moom ak ki ñu wax belli jàllo yàlla na ko yàlla yërëm ñoom ñoo fi doon ñëw di monter fil yi ah ba yàlla dogal nag mu nekk ab meer waaye tamit fàkkul jëf nëbbul benn teraanga ki nga xam ne doxoon na digganteem ak Ceerno fumu mu munta taxaw ci biir mbolo lu mu sekkon ak ceerno daf koy tuddu ah bu yàlla dogale ceerno xamne dafa wara jël parole daf ceerno daf koy xoss ne ko ah bul wax li nga bëgg wax de mo ne waaw ceerno inshallah duma ko wax waye bu xasse ba taxaw jël micro bi neena dal dana lim teranga gi ba limale tere baasi sax nee na moom ak Mamadou di taawa moom ceer Thierno mii di Thierno Mamadou moom la leen moom la ko boole woon ñu bokk ndey bokk bàyyi. nee na xaaj Basiru mi ak xaaj Pape Makhtar ñooy nekk ñoo nekk ay seex. nee na yàlla dogal na nag kontaan na yéreem nag bi nga xam ne moom la ñu boole ci biir yére yi comme que ñoom ñëpp ñoo bokk ndiru ay yére. nee na ñoom ñett ñëpp ñoo bokk benn mbir. ndeyit diisoo wuñu tamit yëgante wuñu tamit nee na ci wàllu mbiru diine gi nag Ceerno Ibrahima nitu yàlla ku baax la magam moo ko njëkk yeggeeg moo nekk faal moo ko njëkk wax waxu Ceerno kooku nag way juram bu jigéen ci ay nitu Ceerno yu baax la bokk maam asta Mbàkke doomu sëriñ baara mbàkke kooku moo ko dénki ceerno ah, ba ñoom ñëpp yàlla dogal ñu génn àdduna yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen kooku moo ko fi njëkk indi ñu nekk benn mbir ba yàlla dogal tamit xaj pab maxtaar wax ceerno mbiram tamit mu wax ko mbiru zawiye bi nee na sant ñeel na yàlla na yàlla dolli sutura bi yàlla na yàlla dolli Pape Makhtar jërëjëf Pape Makhtar Ceerno ajaaraama kontaan na bu baax kontaan na bu baax nee na ñaari saar yi nga yi nga yi nga daanelee tey yooyu la bëggoon mu waxtaane ci tuuti mu tegaat ci beneen boppu saar ba ñu xam ñun njaboot gi lan mooy njëriñu salaatul fatihi li ma uxlik waaye nag mu ngi guddi waaye nag salaatul faatihi li ma uxliq bu yàlla dogalee ab nit nga am ko ci ndigal neena la nek ci bir sar yoy yep yàlla dana la ko defal ndax salaatul fatih lima ma dana ñu wax ci ay prim ñuy wax ne fal la baye ko ci alquran نينا نيتو يالله بو باخ بو خامن داي غيس يونتي بي صلى الله عليه وسلم فاسا فاس فك دو اي نلاو كوكو مو فيرل تيرنو والو سار يوي من الفاتح لما اغلق مومو مينغوك اك انا فتحنا لك فتحا مبينا والخاتم لما سبق مو مو مينغو اك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ناصر الحق بالحق وينصرك الله نصرا عزيزا مو مينغو اك وينصرك الله نصرا عزيزا والهادي الى صراطك المستقيم مؤمنو اك ويهديك صراطا مستقيما بودول ونك جوتاي بي خاونا غودي تا وقت باغي دم kenn ku ne danañu wax ba yow ab taalibe bi nga xam njëriñam waaye daal ceerno nee na képp ku yàlla wërsëgal nga téye salaatal faati mboolem li yàlla garantil woon sallallahu alayhi wa sallam fa lee ca saar boobu yow tamit taalibe bi tamit yàlla dana la ko sédd ndax yàlla moo wax rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inna fatahnaa laka fathan mubiina يو طالب بوجه صلاة الفاتح دينا أم فتح مبين إن شاء الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كيف كو خمنا وين صلاة الفاتح نينا سيابو يرام أرامنا سفارة آه، لينك موي يالا جيغل ليغا جيتلون اك ليغا مودي لب بولا يالا بكار بو جيتو اك ñi ah dew directement aljana nga jëm ndax du ñu ñoo jàng benn yoon salaatul fatiha njot la ci biir safara ah nee na ceerno nee na du moom moo ko wax de seex sayidil xaaji malik si radiallahu moo ko wax cheikhu umar wax na ko cheikhuna tijaani wax na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko moo garanti loolu képp ku ngoy ci salaatul fatihi li ma uxlik Yalla dana la may hidayatu siratan mustaqiman lolou nak firndem rek ceerno neena na danga mal wor nga seet agresseur bi gën ñang ci agresseur yi nak ci senegal nga ak mom ba nga may ko wird al fatih nga ne ko dal yow dal garantil ma rek bis bu ne nga wird benn boo boo noppee ci sa laazim bi wala wasifa rek yow xëyal ci li nga doon xëy rek bul def laazim ak sax ah defal benn sala benn peru salaatul faati def ko rek benn yoon boo noppee ci benn peru salaatul faati bi boo jeexalee nga ne ko demal li nga doon def ci njaawteef nee na nga double na nga yokk li nga def li nga doon def ci mbon. ne bu dee benn nga doon def nee na dafa ci téeméer wala junni waaye wala yaa xam fu sa doole yem waaye daal góor-góorlul nga jàngal ma benn peru salaatul fatihi teeru nee na wallahi billahi nee na at bi du dellu siwaat lu dul ne dana bàyyi caay-caay googu kay nee na ngir barke salaatul fatihi nee na Ceerno moom lii mu wax xam na ko te it xam na ko ca dëgg-dëgg te it deug dëgg-dëgg Thierno ne le wax xam nako ko te it yàlla xam na ne xam na limu wax mom ndax yalla dogal na jaare na fi ñu bari am na ñi mu jaaral ñu ñew ci mom ñu ngi naan sangara ba mandi mu dindi xaalis mu ne ko yow ban façon sangara ga daan naan mu ne ah sangar nangam la do ceerna ko boobu seerul forul ndemal seedi bi gën a foor nga naani ko ndax danga tuxu mu ne aha nee na boobu sigret bi tuddoon camélion moo amoon camél nee ah moom yàlla dogal na xamu ko loolu moo tax ñu ngi ci bind ci suuf caporal mu ne ko camélia nee na boobu du ndaanaan du ko tuxu dama la seet dinil wala kil sees mu dindi xaalis mu ne ko am demal jënd ji nee na yàlla dogal ni motul semaine lu dul ni waa ji ñëw na Ceerno jox ko salaatul fatihi lima uxlik am na ñoo xam ne ñu ngi fii tey bu ñu ñëwoon ci jotaay gi ñoom ñooy seede kàddu googu am na ñoo xam ne jëfalante na ak ñoom loolu ñenn ñi ci ay baar lañ doon nekk motul semaine ñu nekk ay imaam te it ba tey alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi jiite nee na nag moom li mu wax lii moom Ceerno xam na ko waaye nag salaatul fatih du place moo ko yëkkati du pour jiite moo ko yëkkati loolu nag bëri na mu koy fàttali suñu tariqa bii du tariqa ngir naa nekk président du dariiga pour ma nekk ministre du dariiga pour ma nekk directeur du dariiga pour ma nekk milliardaire nee na dariiga la boo xam ne moo gën yooyu yëpp mu lim mooy am ngërëmu Mawlaana tabaraka wa taala nee na lii nag am ngërëmu yàlla moo ëpp yooyu yëpp mu lim na président quelque temps la ministre quelque temps la directeur quelque la patron quelque temps la نانا نغردوان الله اكبر نانا تايلا اك الله تايل نك ني في نك دي تيجان نانا كوتيول نخ ليرو صلاه الفاتح موغي جولي سي سين خار كانامي بمثاله من له نال أجرا غير ممنون لآخذ هذا الورد ثالي من له نال أجرا غير ممنون المشي بسرى لآخذ هذا الورد سالكيه من ناله نال أجرا غير ممنون képp ku jàpp salaat al fatih ci ndigal yàlla dana la mayee ci melokaan gi boo ci saxee te bàyyiwoo يلا دوغل لا تي على سر علم لك صدرك منو كا واخ دا فا غود واي يال نيو يالا يومبالال نيو داجي وات في ديفن با نيو وقتاني لي نيو بغ وقتاني واي بولا يالا ديمبالي دال nga nek ci te bayiwo يالا دوغل لا تي بير سر اذا جاء نصر الله والفتح ne lol nak lepp mo ngi bok ci bir salatul fatih lima ughliqa yalla ñu yalla Pape Makhtar Thierno nee na yal na yàlla fay yiw yal na yàlla fay la yiw waaye Thierno nee na ah baaxoo ni mu baaxee de laaboo biir comme ni mu laabee biir nee na boo laaboon biir ñee ci sa xaasiyatu saawi bii am na lim fa bind ci alam nasra waaw nga waxtaan nga may ko nga yóbbal ko mbooloo waaye nag da ko denc de Thierno nee na xamul nag ndax moom daf koy may wala day nopp <laughs> yooyu ñu lay tuumal noppi ku ñu ngeen noppil Thierno nee na mu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ñu fekkee déwén Thierno nee na tamit am na beneen mbir moo xam ne bëgg naa ko Pape Makhtar ma wax wala ma noppi nee loolu nag moom la engagé وخير ما ينفق فيه المال قراءة القرآن عند الناس كذا روى أهمة القياس نانا يالا دوغال نجانغ نانا القرآن الكريم بيق فيه أيوة كأن كون لامبال نك سبوس نك نغيني أدي القرآن الكريم نك كو أمول نك نجانغ بن نبير صلاة على النبي بو ديفي نك صلاة الفاتحة موغن لامبولين تمو نيو جيجين ني غاولين Thierno nee na ñëw teew fi ci kanamam na am ñu dog dug ci bir mbolo mi ngare jonjoon ngare gaw len Thierno bashir bismillah na ñëw rek Pape Makhtar génneel Pape Makhtar génneel Thierno nag bashir ñëw len Thierno nee na yàlla na yàlla wutal li nga xamne mom lañu la joxe ku joxe ceerno nee na yàlla gis na ku joxe gi tamit joxeel nga koo xam ne joxewul ku joxewul it yàlla gis na sa yéene yàlla nañu yàlla defal barke alquran yàlla nañu yàlla may barke alquran yàlla nañu yàlla may barke alquran yàlla nañu yàlla may ñu fekkee déwén nii ñu fekkee ko at yu bari yu bari yu ñëw ci kanam fekk ñu ngi yokk ci suñu biir dara wàññeekuwul بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين صراط الذين اللهم يا آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين خاتم لما سبق الله آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله آمين آمين ربنا تقبل منا إنك آمين آمين آمين آمين تسلم يا رب يا رب